di leen nuy bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivi sur Kewel Info du nuy kilifa diine kilifa aada yëpp du nuy sama sëriñ notre responsable moral bu daayatu Moustarchidine wa Moustarchidaat muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér yàlla aar ko yàlla sàmm ko du nuy kilifa diine yëpp di ñaan réew yàlla fi yàlla def jàmm di ñaan yàlla gàmm bi nga xamante ne moom lañ jëm yal na yàlla barkeel lépp lépp luñ fi ñaan yal yàlla nangu buur bi nga xamante ne commencé nañ ko démb xam nga di ñaan lépp luñ fa commencé ñaan rek yal yàlla nangu sawan baawan ah, tey nag ñu ngi fii si Médina ña seeti champion muy ki nga xamante ne moom mooy Bébé Diène bu écurie Soumbédioune di ko wat nag bu baax a baax du nuy ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk ñoom Zaloné ak eh, staff bi yëpp ñu ngi leen di ziar Bébé Diène ñu fas yéene waxtaan ak moom gannaaw ci loolu amoon na combat moom ak ki nga xamante ni moom mooy sarko mu nekk combat boo xamante ni ci euh, mën nañu wax ne ci semaine combat wala ci deux semaine combat bi te avant loolu ñu ngi doon dégg que ni Bébé Diène dafa am blessure du bëri ci loolu loolu antu que ni Bébé Diène bëriwul coow li bëri que ni Bébé Diène blessure bi yàgg na ci moom ñu gis nag euh, tànk bi su ma juumul da ci dafa def opération. di ko ñaane yàlla nag yàlla na ko yàlla may wér ah mu rejoindre waat léegi gars yi parce que kon li may wax rek dafa nekk xale boo xamante ni làmb daf koy bàyyi xel Medina daf koy bàyyi xel nag xale boo xamante ni ba mu ñëwee ci làmb dafa am lu mu ci yokk ñu koy bàyyi nag mu nuyoo ñu waxtaan ak moom di ko ñaana laat daal wér bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu champion. waaw maa lay fay Fatma Dia di wax ne ni jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ma sant yàlla. julli si yonent bi sant sama ñaari waajur te ñaanal yàlla sama papa fu mu nekk gënal ko fu mu jóge ak bépp koo xamante ni dem na waaw di ñaanal yàlla suñu waajur yi na yàlla na yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ba ñu fekkee suñuy njëriñ waaw di nuyu may fu ma fekk ni muy Médina rue 11 angle 22 ci kër ñoom Cheikh Zaloné waaw di nuyu kilifa yi nekk fii nii yëpp suñu waajur yi xam nga ku si mel ni père père Bado. ak met sama maman Aminta xam ma ak ñoom Jalone sama gars yi ñoom ala xam ma ak gars yi fi nekk ni ak tout tànk yi xam ma ñoo ñoon dañ ma bëgg a ak ñoom Ndiaye xam ma ak sama mm-hmm. waaji jóge Tëngéej nabi xam ma ñëw ba fii di ma seet si mm-hmm. waaw di nuyu ñoom Ngoone di nuyu ñoom Moussa xam ma waaw di nuyu ñoom di nuyu waa kër gi yëpp daal rawatina na maa ngi nuyu waa Medina bu baax a baax di nuyu sama waa Gàlle di nuyu sama nijaay bu baax a baax sama nijaay Ismaïla waa Tiwaan Pël ñëpp maa leen di nuyu di nuyu àdduna waaw di ñaanal yàlla tamit fu ñu jëm ni muy gàmm gi yàlla na xam ñu dem si jàmm ñibbi si waat si jàmm incha allahu rabbi waaw di nuyu képp koo xamante ni nag mu may bëggee waaw. Mm-hmm. nuyoo bi am na solo mais fi may njëkkee ak yow muy que ni da nga doon préparer sa combat ak Zarko mais ci waaj boobu noonu ndax gisoon nañ komba bi. jàpp jàppoon nañ dat Gayib doon xar Bébé Diène mais ci combat bi ci côté entraînement yaa ngi ko doon waaj bu baax. waaw man moom pare woon naa lépp wax dëgg fa neex yàlla waaw mais yàlla mooy dogal tamit quoi te moom lépp lu mu dogal kenn du xëccoo ak moom waaw pare woon naa fépp waaw waa Medina tam pare woon na ak sama staff bi yëpp waaw ñëpp pare woon nañ daal waaw. mais ñu gis ni combat bi yaa ngi ko doon préparé mais dañoo jékki-jékki dégg ay rumeur. bébé bébé du mbër dindi socc bi bébé Diène euh, du kii du bëri bébé Diène kii bi liiwul noonu dafa am blessure day nax ay supporter am mais tey bu ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ci cadre blessure bi euh, Bébé Diène def ba blessé ak blessure bi Bébé def ko doon nëbb wala ak blessure bi dafay yàggoon ci yow wala nu mu demee. waaw blessure bi dama doon contact quoi am ñu dal suñu ginnaaw dal sama tànk bi loolu moo andi blessure bi suñu écurie la ma dalee quoi waaw di leen nuyu nag bu baax xam na ni ndogalu yàlla la rek du kenn quoi. mais bi jën bala blessure bi dalee da nga continuer tamit say entraînement da nga ko doon nëbb wala blessure bi ndax sa dama dégg am naa ay écho que da ko doon nëbb nëbb boobu noonu ba da nga jàppoon ni garaawul wala nu mu demee. waaw blessure bu ma dalee xam nga dama jàpp ni xam nga mooy loolu quoi man bëggoon naa dem bëre ji quoi. mais mooy waaw jàppoon naa ni xam nga man ay blessé yi nii mooy loolu quoi ndax yàgg naa xam ma sama combat Baye Mandione def naa choc bu metti dem bëre ji yàlla may ma ndam mais léegi dafa doon blessure boo xamante ni xam ma sama staff képp kuy gis may dox rek xam na ni kii blessé na waaw. ñoom ñu ñaale gars yi man du man ak sama di nuyu tamit sama sama ménagère pour Père Mbaye na si loolu. waaw ndax lépp tamit moom la. Mhm. waaw après blessure bi da continuer say entraitement mais kan nga jàpp ni carrément da nga dem hôpital wala après ba ñu signalé ne blessure bi si ngay demee xool gravité bi. waaw blessure bi waaw sonnoon naa si quoi mhm. mais maa ngi nuyu tamit koo xamante ni waaw mooy Serigne grand Serigne te mu nekk clinique Serigne Saliou te mu nekk Risseng mhm. comprendre nga. kooku képp ku tawat ci koñ bi wala li mu doon néew gu doole rek moom da lay jël quoi comprendre nga ñëw ñu defaral la naaj après si la ma jël dem ñu defal ma rajo gisuñu dara si la ñuy def beneen rajo bi i i li li IRM quoi après si lañ gis blessure bi ñoom ñu ne ma lii mënoo si bëre waaw mu taxaw si tamit wu baax sëriñ waa maa koy nuyu bu baax waaw di nuyu nag xam ma sama kilifa koo xamante ni xam ma lépp lu mu wax moom moo tax ma wax waaw muy faadaloof waaw waa waa kay waaw maa koy nuyu bu baax. Hmm. d'accord léegi après ba nga demee si lañuy wax ni carrément blessure bi euh, Bébé Diène day toog mënul bëree ndax gis nañ ne blessure bu metti la xamoo woon ni tey gravité bi ci loolu noonu Bébé Diène dafa def opération. waaw ah, dama def opération waaw. Ah. Ah, dama def waaw def na nañ opération yi di nuyu tamit waa hôpital Fann. waa Malta maa leen di nuyu bu baax di nuyu ñoom madame Kébé waaw ñoom ñëpp maa leen di nuyu ak ñoom Balde xam nga saa su ma ñëwee daal ñu may toppatoo wallaay azim waaw ñu ne yow yaay suñu champion xam di ma traité naaj di nuyu sécurité yi nekk Malta yëpp di ñaanal yàlla tamit képp ku tëdd hôpital Fann ak yeneen hôpitaux yi yàlla na leen yàlla may wér yaram ba ñu mun a jug delluwaat seen activité ndax metti na ko waa ndax am na fu ma delloo tamit ko waa waaw xam nga rek man dama doon tëdd foofu fàtte saa sama bës waaw dama doon tëdd fàtte sama bës ndax maa fay gis lu garaaw mais xam nga maa leen di ñaanal képp kuy maladie nekk fan rek ak képp koo xamante ni sa yaram xam nga waaw maa lay ñaanal nga jaraat ci bu baax waaw ak ñu nekk tamit si prison yi ñoo xamante ni caabi féete na leen ginnaaw maa leen di ñaanal bu baax a baax pour ñu génnaat di jaalewaat tamit encore une fois sama sëriñ Fallou Igi yàlla waa Fallou Gy yàlla na ko yàlla yërëm xaree àjjana mm-hmm. waaw di ñoom Cheikhou Thiam ak gars yi fa nekk yëpp waaw. Mm-hmm. opération bi euh, ba nga defee ñaata jours nga am waaw am naa fa ay cinq jours xaw ma six jours mm-hmm. waaw. yaa ngi demaat. waaw maa ngi demaat waaw. Uh-huh. waaw instant bi ñoom lan lañ faj rek lépp sama waa ji la nag waaw moo géré yëpp. waaw. moom moo may yóbbu moo may lijjanti xam nga may xool ci lan laa nekk ndax lekk naa ndax naan naa xam nga tamit xarit loolu mooy loolu mooy xarit waaw te xarit dafa jafe nag waaw mais moom seewlu wu ma xaw ma dafa ma dara fu ma nekkee si tolof tolof la ma feeñu moom moo dama koy bàyyi yàlla rek quoi waaw dama koy bàyyi yàlla bi am fay yàlla na ko yàlla fay quoi waaw. kon tey euh, bi waxu waxuñu ci làmb nag nga la santé parce que weer moom boo ko amulee mm-hmm. gëm naa ni am na lu bari doo ko doo ko attan mais après ci biir loolu CNG bi est-ce que tamit sa cadre blessure ak assurance bi ñuy wax ñoom ban taxawaay lañ ci am. waaw CNG moom xam nga wax dëgg fa ne yàlla pour ñu pour ñu accepter affaire bi saa xam ma da ngay fay quoi. waaw da yóbbu sa lii nu mu tudd. médical pour ñu def médical bi da ngay. waaw waaw da ngay fay. Mm. waaw dugal naa médical bi wax dëgg fa ne yàlla di nuy tamit ñoom ñàmbi tamit waa ndax xool nañ ko ñu xam ne ni man dama blessé mm-hmm. waaw dugal nañ ko ñu accepté ko ñu xam ne ni kii gaañu na ñu boole ma seen médecin mm-hmm. waaw di leen nuyu bu baax mm-hmm. waaw di nuyu waa CNG bu baax waaw. mais après ñoom euh, nañ retour que ni blessure bi fi mu toll wala wala waxoo leen dara. non waxuguma leen dara parce que lii da ngay toog xaar ko waa médecin yi lépp sama médecin lépp lu ma wax ko quoi. waaw da ngay toog waaw. kon loolu moo tax sa combat ak Zarko moom dañ koy teg à côté. waaw pour l'instant waaw man moom maay fukki sama bopp gérer waat xam mu sante mooy lépp yow wax nga ko mm-hmm. di masaw tamit sama promoteur bi muy jamaïcain ndax lii nii tamit tayu ma ko waaw te moom tamit sonn na si investir na ay millions am si ñun tey mu dem ba des deux semaines mu demee nii xam ma day metti si moom tamit ko waa ñun ñëpp metti si ñun billaahi mm-hmm. waaw. Euh, mais kon tey ba demee yëg ni euh, Zarko jëlaat dara. non defu suñu la bokk suñu mag la suñu kilifa la Medina moo soxla di ko ñaanal jàmm ak salaam rek waaw man mënul met si man wallaahi azim. bi bi jël bëgg jël Zarko. ah bëgg jël suñu mag la dañ doon roy si moom te lépp Medina moo soxla waaw moom suñu gannaaw la mm-hmm. duñu xëccoo moom si moom dara. te di ko ñaanal tamit jàmm ak salaam maam si ndam waaw. tey nga nekk xale doon seetaan ay Gris Bordeaux ay Balla Gaye tey nga dem ba bokk ak ñoom adversaire tey Bébé Diène war a bëreek euh, Zarko Zarko jël avance ki nga xam xamante ni moom mooy Gris Bordeaux loolu ban jàngat nga ci def. waaw sant yàlla lu ñuy wax ñaanu waajur. waaw damay santaat yàlla bu baax santaat sama yaay parce que man Fatma Dia bu may dugg si làmb lu ne laa dégg Pël Fuuta mënul bëree. te tey lépp damay gëm ne nii nag lépp loo gëm yàlla dala si fekk si man xaw ma nu ñuy daanee nit kon tey bu ma demee bay supporter Gris Bordeaux di sol seen t-shirt tey ñu bokk même adversaire damay santaat yàlla suñu borom santaat sama yaay santaat si ñoo xamante ne dañ ma gëm nag waaw parce que yombul quoi tey mun naa bëre Zarko rek dem bëre roi des arènes yàlla mun na lu ne waaw <laughs> Eh, Zarko mën naa réussir ñaar yëpp eh, daan ko Gris Bordeaux moom na moom instant bi moom ñaar ñëpp lay waaw man moom Gris Bordeaux laa àndal wax dëgg fa ne yàlla waaw ndax Medina moo soxla tey xam ma Gris buñ ko daanee Medina ñëpp am lu leen di metti ay mag yi yëpp dañuy jooy xale dañuy jooy te man bugguma loolu lépp luy sigil daraapo Medina rek laa soxla te Gris suñu mag la waaw dañoo bokk adversaire rek wallaahi ba mu ko yëgee sax dama kontaan waaw. Mm-hmm. du dara quoi. d'accord euh, mais tey euh, dafa mel ni Bébé Diène ci côté communication dafa mel ni instant bi dafa focus dafa bëgg a focus ci kan ci yaram bi ba pare soog a ñëwaat ci dafa mel ni Bébé Diène kon incha allah euh, mën nañoo xaar fin saison mu bëre mais nekkul ci début saison. waaw nekkul ci début saison nag ndax wax dëgg fa ne yàlla maay sama yaram quoi waaw lépp lu sama médecin wax rek après ñu ñuy lancé ko waa CNG dugal suñu affaire waaw dañaan yàlla bis bi yeggaat ci jàmm yàlla may ma ndam. mais ci côté jàppale ndax gis nañu li la dal nekkul blessure bu ndaw mais ci côté financement ku xam ne Bébé Diène nekk xale la macha allah mën nañu wax ne avance bi jeex na bu yàgg mais tey ci côté jàppale Bébé Diène day ñaan gars yi jàppale ko wala jàppale bi macha allah lépp ok. waaw sant yàlla rek ndax lépp looy liggéey moom dañ ci war a jëriñu amoon naa lu ma dénkoon sama jalone waaw mu génnee ko am tamit ay kilifa yoo xamante ni jàppale nañu ku si mel ni Serigne docteur Serigne Saliou te mu nekk Rue 5 jàppale na ma si ku si mel ni Nino bu Mbaye ja jàpp na si grand Assane Mboy doomu Rue 7 bi jàppale na ma si waaw Aliou borom Allemagne sama mag la kooku ndeysaan si benn rond-point lañ daje ma ànd ak Alaaji Mbaye comprendre nga après mu ñëw bind ma mu ne ma man sa mbokk pël Fuuta te dama lay jàppale incha allah moom tamit jàpp na si bu baax di nuyu tami sama grand ah ma Espagne jàpp na si bu baax ku si mel ni Momzo jàpp na si bu baax a baax mhm. DG Mamadou Diaby te mu nekk Rive 25 borom scooters yi jàpp na si bu baax a baax waaw waaw maa ngi nuyu tamit sama l'international yi ku si mel ni sama grand parti siis xam naa échange dañ nekk si regroupement lii bi nu mu tudd euh, équipe national bi xam nga ma moom da ciy jàpp bu baax waaw. kon macha allah. waaw macha allah maay sant yàlla bu baax nag. waa di nuyu tamit waa kër Bilal Fall yëpp ndax man fa la ñu xam fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo ku si mel ni sama xarit sama doomu nday Abdourahman di jël nuyoo bi daal di teg ko si loxo maam waaw muy seen maam ko waa nañ ma nuyoo waa kër gi yëpp waa kër Bilal Fall sama booy bi day def cant samedi incha allah le set muy tubaab. maa ko ñaanal yàlla mu réussir bu baax a baax di si woo Baye Fall yëpp waaw. d'accord saison bi nan nga ko gisee. waaw saison bi neex na gars yi bëri nañ waaw waaw yi bëri nañ ku si mel ni tamit Albourakh xam ma muy def jéego bu rafet si làmb waaw ñu ngi siy def jéego bu rafet ndax mbër loolu la quoi mbër yi dañoo bari mais da ngay gis benn journée boo xamante ne dañuy teg ay espoir yu bari moo tax espoir yu bari feeñ ku si mel ni ñoom Liss Ndiago yenn yu bari si la ñuy feeñee ah. mm. Mhm. ban combat tey su ma doonoon ban mooy sa meilleur combat am nga meilleur combat de l'année. meilleur combat de l'année waaw mais lépp neexaa. Ah. combat moo la ci gën a marqué. combat boo xamante ne nga ko moo la ci gën a marqué. combat yëpp neex. waaw combat yëpp neex. combat yëpp neex. am nga meilleur de l'année. meilleur lutteur waaw. ngeen lan am nga mais. waaw ah, man ma wax dëgg fa ne yàlla Fatma Dia. lan nga ma wax léegi am nga ma xam ne. non non nga ah, <laughs> chaque jour yaa may jàpp samay français ba passé yaa ma lii comprendre nga. maire lan. <laughs> maire de lutteur de la ne <laughs> meilleur lutteur de l'année waxal meilleur lutteur. loolu waa CNG rek ñoo koy ñoo koy ñoo koy joxe ko waa. tey gis nga coow li gis nañ tey euh, ñi nga xam te ne ñoom lañ sélectionné tey Modou Lo lu ci ëpp tey sondage moom lañ génn. tey waaw bu ma la waxee tey Modou Lo ren saison bi mu def lan nga ma jox. waaw loolu dinaa si wax dara parce que Modou jàmbaar la waaw bu muy juddoo xam nga nee mën nañ dem wala mënul dem tey mu dem ba teeruwaat de ba pare mu marqué empreinte mu daan daan ñaari mbër yoo xamante ni ñooy neexuñu daan ci làmb képp xam Ama Baldé xam xadaram xam lu mu def ci làmb comprendre nga kooku neexul daan mu ñëw jàpp ko daan ku ci mel ni Boy Niang ñëpp nee nañ dafa mën a xeex mu ñëw jàpp ko daan waaw kooku def na jaloore rek waaw waaw kooku moom méritoo jël meilleur lutteur de <laughs> kooku méritoo na ko quoi jël ko quoi parce que jàmbaar la waaw dafa xeex waaw teg la ñaari mbër ñu bokk dëkk xam nga gañe leen loolu yombul de waaw. sa grand sa xarit jël na combat de Ama Baldé Franc combat noo gisee ñi doon wax combat bi waru ko woon du genre mais noo gisee. waaw làmb la quoi waaw man moom waaw làmb la te Ama mun na ko daan maa koy ñaanal yàlla ndam waaw. risque la nag. waaw non du risque si moom parce que man xam naa ko te aussi tamit damay leeralaat benn affaire bu ma nekkee sama blessure. dégg naa si tamit lu ne. gaañu na gaañuwul. déggaat naa si ñu ne combat Gris Bordeaux ak Ama Balde maa si doon jàppale Ama Balde yàlla xam na ni barki sëñ Fallou Mbacke bu ma yaakaar kenn jarul ma kenn jarul ma may fen vocal yi mun naa la ko tegal. combat bi mu teg taxawee. si la ma Ama Balde woo mu ne ma ngir yàlla ak yonente bi ak jëmm sëñ Fallou bu ñu bu ñu bokk fépp fu ñu la sa dëkk micro ñaanaleel yàlla Gris te ma ne échange yi naaj nañ bàyyi ba combat yi jeex ñu dundaat lu ñuy dund. barki alxuraanu karim ak yàlla ma gisoon rek sama. libéré waaw daf ma libéré naaj. te man tamit xam nga lépp luy sigil sama gox. Medina laa gëm. tey su ñaanal xam nga kiri laa laa bokk. tey fii xam nga bu ñu daanee fii mbor xale yi dañuy jooy mag yi jooy. ñëpp jooy te man fii laa juddoo fii laa yaroo. kee sama mbokk la nag sama dere la man moom du làmb moo ñu boole. mais tey man sama gox laa am. waaw. kon loolu bu daf la metti non metti na ma parce que xam ma dañuy dañ lay jaxase ak say mbokk te loolu benn nit moo koy def benn nit mun na la jaxase ak aduna waaw. waaw mais beneen sa ko sa relation ak ki xam moom mooy Pokola que yéen ñaar ngeen am ay malentendu yu am seen diggante yéen ñaar lan loolu moom man duma ma si wax waaw du man ak moom ñëpp ñu ngi siy jàpp waaw Pokola suñu booy la suñu lépp la. waaw dara doxul suñu diggante xam nga rek Sénégal ak coow làmb gaay dañuy jaxase gaay bu ñu gisul ñaari nit yi àndaat xam nga dañuy yaakaar ni leneen la. boo xamante ñaar dañ leen xamoon ndax ñëw nga kii wam open press am te dañ doon gis nag wax dëgg yàlla da ngay sonn ci Pokola Baldé. dëgg la mal entend non du man. jotewuñu dara. waaw mais xam nga tamit sport daa am fay toll da ngay lëlu làqatu fukki sa bopp. waaw loolu la ko mm-hmm. waaw. mais ak waa Kër Fallaye dafa fës ndax kon euh, li wax direct moom moo leen boole mais tey relation boobu noonu dem nañ ba ne Bébé Diène surtout yow ak Ama Baldé loolu moom àdduna dañ koo xam yéen ñàlla moo leen. waaw sama papa Abdou Salaam maa koy nuyu bu baax ndax moo dox tamit jéego yooyu bu may doon xale te man avant ma leen xamante ak ñoom fu ma dox ñu ne da ngaa nduroog Ama waaw loolu la quoi. waaw loolu moo ñu boole te pami mu téema boppam nga doon fanaan si fii di def lépp waaw ban bilan nga may defal écurie su Mbédioune bala ma jox euh, ñii ñu teg ci ndax gis nañ ren leader yi fa nekk ñëpp daanu sa jën Diène Kairé sa Thomas après bébé Diène ñëw am a neex après ñu gisaat ki xam te ne moom mooy Mbagnick mën nañu wax yéen ñi nga xam te ne yéen bi lan mooy problème bi par rapport ak ñi ngi daan gis luy problème bi adversaire yi ngeen jël wala wala lan la gis nañ yéen ñett ñëpp macha allah. waaw lépp yàlla suñu borom la ndax am na benn année tojoon nañ fi ñu jël pee xaw ma dës kon tamit yàlla bu ñu joxee loolu dañuy sant yàlla bu baax te saa su ne am nañ góor goo ko xamante ni suñu papa Kayre chaque jour xam ma daf ñuy yedd di ne loo leen am sante leen ko suñu borom loo leen ñàkk sante waat leen ko suñu borom maa leen di encouragé bu baax di leen ñaanal yàlla seen suñu yeneen prochaine année yàlla may ñu ñëpp victoire képp ku nekk ci écurie bi waaw. Euh, saison bi li ci des bareetul mais gis nga coow li nga nga nekk xale contribuer tamit ci làmb ak lu mënti xew gis nañ tamit euh, li nga xamante ne wàllum CNG bi yow nga ko gisee ci wàllum dagg yi nga xamante ne say say mag ñu ngi ko doon kaas que ni léegi changement dafa war a am mais tey nan nga gisee lool loolu ci wàllum CNG bi changement yi ci amul yooyu yëpp est que am na yoo xamante ni d'accord nga ci wala yoo def waaw man moom làmb laay topp ko waa CNG dañ leen tegee nii comme président dañu dañoo teg seen seen règlement comprendre nga boo defee lii ñu dagg la boo deful ñi duñ la dagg waaw loolu moom dama damay bàyyi suñu kilifa mbër yi comprendre nga ñoom ñu gérer loolu quoi waaw man moom xale laasi waaw aw ma lu ma si wax CNG mosuma dagg maa ngi sama samay ordre te luñ ma xam ma naaj quoi waaw mais kon que ñoom ñoo gis seen faute quoi man ñoom laay bàyyi ñu doxal quoi waaw man moom ñëpp laa sekkal jàmm quoi waaw du ma wax lu dul dëgg quoi waaw duma ma xool ñaari ñuy jubóoñu wala ñaari ñuy xeex comprendre nga ma ñëw di si wax. lu ñu ci a xaar ci retour Bébé Diène par rapport ndax am na loo yore say supporter say combat léegi combat yu metti rek ngay am ndax gis fi nga jógee am feneen foo dal le fait que tey nga daanu ci abaneex jël Zarko mi ñëpp bëggoon coow li bari lool lañ koy dégg que ne Bébé Diène dafa am ku nekk si ginnaawam ku koy tànnal ay adversaire luy problème bi Diène Bébé Diène foofu noonu lan nga ñu ci moon a wax question dama ko fàtte. waaw sant yàlla rek comme lu ma lay wax rek ñaanu waajur dafa fort tey jóge naa si défaite yàlla may ma combat boo xamante ni ñëpp moom lañ soxla ñii nag ànduñu si woon ñii ànd si mais lépp yàlla suñu borom mooy bind nañ bàyyi lépp si loxo yàlla te noonu noonu lay demee saa barki borom Tuuba du si man du si keneen yàlla mooy dogal man loolu laa loolu laa jàppee sama carrière lu ma am ma xam ne ni yàlla lo lu ma ñàkk tamit ma xam ne ni yàlla la te dama koy gëm nag waaw metti na torop na échange sama sa carrière dafa waaw. parce que xam nga boo jugee si lii rek dal si lii waaw mais sant yàlla tamit bu baax waaw di masaw tamit sama supporter yëpp ñu ma doon xaar. non du nattu sax ah. waaw du nattu ko waa mbirum yàlla la waaw saa su ne sama waaji ak sama gars yi dañ may delloo xel démbale faada muy ñëw fi naan gaynde ga di aalu ma xool ko xam ma xam na ni dëgg la ko waa mm-hmm. waaw tey mu noon na demee neneen amoon na fu ma nekkoon kenn gisuma woon waaw tey tamit su ma ñëwaatee fii lii tam man Fatma Diop man dara mettiwul si man. carrière fi bu ma sol. mais boo xoolee ak fii ah, amul benn kii du ci met de sant yàlla de. Ah. Fatma de am na ñoo xamante ne ñoo député woon doo bëre. ñii gaañu nen maa leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jërëm xare àjjana ñii dem nañ seen carrière yeggul ñii ñuy bëre ba léegi man fu ma toll tolluñu fo kon damay sant yàlla bu baax. ñëw bokkaat. am fu ma nekkoon tamit. toog deux ans ñëw manqué sama empreinte. li nga ma li nga manqué woon nga amaat ko. lu ma manqué amaat ko. su rawatina waa Medina nag. dooleel ma bu baax a baax gëm ma nag. avant may ñëw nag. ñu gëmma ma. waaw dooleel ma bu baax a baax. kon man aw ma waa fay waa Medina. waa Gueule Tapée waa Rebeuss waa Colobane xam nga képp waaw town bi yëpp maa leen di bëggee ak xaar yàlla Kastoor xam nga Grand Yoff Liberté 6 xam nga euh, Tiwaan Pël di nuyu sama grand bi Bunaa ma ko waa borom tool bi ak ñoom Dóor maa leen di bëggee bu baax di nuyu Bunaa waaw maa koy bëggee bu baax waaw di nuyu ñoom Ivraka borom terrain yi waaw di maa leen di nuyu bu baax a baax waa tey xam ma tey bu ma bëree ak sama combat ma neex ba pare dama ñëw mu yëkkati këru kër jox ma mu ne ma mbër dafa war a am dëkkuwaay te moom moo tax jeunesse su Tiwaan Pël yëpp ñu bëri jëluñu gaal dem. parce que mu leen di ubbil société ñuy liggéey waaw di nuyu tamit képp koo xamante ni mu may mu may utali ñaan si mel ni ñoom tubaab Kalilu ñoom Matar ñoom Laay ñoom Tafa euh, ñoom kii Tafa Cissé ñoom Zilo xam nga staff bi yëpp sama président supporters yi ku si mel ni ñoom Koutia ak sama grand Momu Naar xam nga maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama mbokk séeréer yëpp képp koo xamante ni mu may ñaanal maa maa jël nuyoo bi teg ko si loxo sama papa du ñaan mu nuyul ma leen ñoom ñëpp di nuyu waa jaxaaw siin di nuyu waa Touba di ñaanal yàlla sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee njëriñu ñëpp waa parce que man daf ma defar waaw sëñ Abdou Karim Mbacke daf ma defar bu baax a baax waaw amoon na nu ma meloon te man xam ma damay tëdd di mu feeñu seede yàlla maa koy nuyu bu baax di nuyu ndind waa ndind yëpp. di nuyu xalifa généraux yëpp di nuyu waa Canaba waaw xalifa son Canaba yi maa koy nuyu baa sam benn grand moom fa yóbboon muy Malick waaw di nuyu képp koo xamante ni moom may ñaanal maa leen di bëggee na hurade kala ko ɓiɗo pullo fouta woni ɓe gina konakiri timbi madina kula mawde hamma juntu popo dara kala ko ɓiɗɗo pullo fouta woni e, e aduna nan hiwrade ɓe yoɓe toronolan allah moƴƴano eɓe gina bisaw nene ngaabu nan hiwrade ma moƴƴano inchallah dama doon nuyu tamit sama mbokk yi waaw ndax nit ku nekk sa deret tamit nga am waaw nii xam ma man dañ may dimbali xam nga tey bu ñu déggee may sant may may wax si pël dañuy am fierté dañ may woo laajal Jalone. yow tamit nekk pël Fuuta. waaw sama yaay pël Fuuta la sama papa. waaw maa ngi lay fay Fatma Dia di nuyu waa site bi nu mu tudd. Kewel Info di la féliciter ci travail bu remarquable bi nga nekk di def nii macha allah quoi ñu ngi lay encourager bu baax jàmbaar ga Mm-hmm. di ko ñaana mm-hmm. mm-hmm. euh, kii kii jàmbaar la champion la quoi parce que il tout résumé quoi comprendre ne boobu tey discours am loo ko wax da ngay jël ne la yàlla la quoi comprendre nga te dañ nekk ci dëkk bu nakkaree waxee muy Sénégal gars yi dégg ni du benn dangay tontu sax kii xool nu mu transformé sa wax surtout site internet yi aussi dañuy dañuy parfois dañuy juum quoi parfois ñu tiitare ci nit loo xamante ne nit ki bu ko bu ci bu ko bu dugg de mais bu ko xoolee sax da lay te kii dafa am mbokk am famille lu bari nekk ci am ñi ko wër ñëpp ay ndaanaan lañ ñoom alaaji fay ñu ngi nii tubaab jalone gaa yu baax yëpp ñu ngi fii toog donc dootul nit ku ndaw li ko dal nag du dara dégg nañ ci lu ne mais ñun amuñu compte bu ñuy rendre kenn parce que ku ci nekk nag sa xalaat yaa ko moom tubaab bi nee na les goûts et les couleurs ne se discutent pas suppu kànja ku mu gënal maafe doo werante ak moom kii champion la kii axlu làmb amul mbër buy takka ngeen moom ragal la kii bu jéemee ba bu jéemee ragal sax ñun ñi ko jege ñu bàyyi parce que ay gaynde rek ñoo ko wër donc bu blessé nga dégg en retour ay dafa daw combat dafa kii kuy daw combat dina jël avance su Zarko c'est une question que je pose kuy jël avance kuy ku ragal mbër dina jël avance kii bu ñu ko bàyyi woon yàlla moo ci def sutura bu ñu ko bàyyi woon ñun staff bi billaahi mën na dem bëri ji noonu ñun xam nañu Bébé Diène mais sauver làmba jarul loolu c'est la santé avant tout donc comme que mu ngi en mu ngi en convalescence mi ngi faju dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér gi yaram parce que c'est la base nit mënoo def dara te am loo wér fu mu toll nii ci faju la toll dañuy focus mu faju ba wér bu wéree ba pare mu reprendre ay activité am yow Fatma jo ma yow lañ koy may saa bu wéree ba commencé enternet boo saa boo paree ñëwal ngeen waxtaanee lu leen neex waaw noonu la demee quoi. xam naa foog ma bàyyi alaaji fay mu barkeelu quoi non mënul ñàkk kaay maa siyaar ñëpp di nuyu axlu làmb di nuyu waa Médina bi yëpp di nuyu champion yi tamit yi fi nekk ñëpp di wax ni nag ñun macha allah dañuy kontaan ci suñu mbër ndax dafa entraîné ba blessé blessé nag jour sax international sax dafay def day war a football léegi match blessé léegi te dafa bokk ci convocation bi comme loolu natt suñu borom la ndax kii wax dëgg yàlla gaynde la jàmbaar la te xam nañ ki mu doon xam nañ sunu qualité mbër man maay géwalam maa koy tëggal maay géwalam maa koy tëggal ba pare mu nekk sama waay man lii sam su ko def c'est la premier fois waaye moom jar na ko ndax nit ku baax la xool bu rafet la yor boo gisee daa blessé mi ngi fii si kër gi fii la ñuy nekk chaque jour du tànqal waa kër gi chaque jour waa kër gi tamit kenn du ñoom di togg di ñu jox naan lépp am dara manqué wu fi mbër bi mi ngi sant yàlla de mu ngi baax nice waaye bu ñu bu ñu commencé entraîner ba ñëwaat biir esaat non man dama ne da xam lépp dëgg la de. non dama ne man vaar maa xam njëkk maa xam El Hadj Keita ñoo njëkk a way vaar vaar safuma yaa ma dégg man vaar way nañ ko bu yàgg vaar su ñun la jóge xaaral ma xooli vaar xooli fay xew rek xooli ma vaar mais bu ñu ñëwaatee esat si kàttanu la loolu lu ñu waxtaanee la ba pare Zarko déggante nañ def nañ direct waxtaan mu ne ko saay yow da nga war a sax seeti mbër bi moo xam ne ni saay dafa blessé waaw ndax moo xam waaw fa la ñu mujjee nag waxtaan waxtaanu àdduna ndax xam ne ni saay blessé na macha allah tëggkatam tamit moom tamit mu wax si wax ju rafet waaw naa ñaanal mbër bi te loolu mooy àdduna ko ndax waaw sport ak blessé ñoo ànd mais yal na yàlla la fa cat rek te lii nag yàlla na fi yem blessé bi yàlla na fi yem waaw di ko ñaanal yàlla. mu dellu si ay activité na entraîné ñëw dëgër kët xam naa ne moom mbër bu nu njëkk jàpp ngeen boobu moom bu la yóbboo xaaral sa bopp si suuf. am laay wax ñoo la gën a pare fuuf ñoo la gën a xotteeku yow pare woo sax pour loolu summeeku da ngay tiit sax yow dafa dof doolu sax ñun jaaxaba la ñuy fanaan ñun jaaxaba la ñuy fanaan barki yàlla ñuy molli molli rek. Zembere. barki yàlla li Zembere dagg suñu yaram ala baax naajo ba eh? la am nga problème eh. defal naa nga Fallu Mbàkke suñu la jafee ma ba non nu ma a wax lay xeeb ko waa ñoo la ñoo la a pare fuuf. gën ko xotteeku yow dafoo daf doon woo sax xamoo ñoo la gën a <laughs> fuuf. yow xamoo sax billaay wallaay tallaay. ndeysaan luñ naan xale rek. xale képp ku mu taq rek am na tax mu taq ko franchement ndax xale moom moomin la tey bu ñu demee ba taq la rek yaa quelque chose loolu mooy wane moom ndax boo amee boo nekkee ci gox te amoo xarit moom surtout xale bu la taqul rek kon euh, war ngaa sitar sa bopp di la wax wax dëgg fa neex yàlla ngoone mën na ma seedal chaque jour xale yi dañuy ñëw fii di ma ñaanal te képp xale bu fi nekk ak ñeneen ñu ñëwul maa leen di ñaanal yàlla nañu màgg ba njëriñ seen seen waajur yi ak ñoom abu ñoom ñëpp comprendre nga maa ngi nuyu benn grand boo xamante ni xam nga muy France muy black yi comprendre nga dafa am benn association bu laasana gujaa bi bu bu ko jox mooy jigéenu Casamance yi fa nekk ak jigéenu joolaa yi moom mooy seen président xaw comprendre nga maa koy ñaanal yàlla seen projet boobu yàlla na yegg ci barke Serigne Touba ndax xam nga moom moo mu boole projet boobu kowa waaw muy laasana gujaa bi waaw relation waaw xam nga pour jàppale. jigéenu Casamance yi ñu nekk international ak jigéenu joolaa yi ñoom ñëpp xam nga dañ fa ubbi benn association quoi moom mooy seen président maa leen di ñaanal seen projet boobu yàlla neen yàlla defal jàmm ba lépp taxaw parce que geste bu rafet la quoi waaw su noble la waaw parce que ñoom jigéen yooyu dañ fa nekk di daan seen doole te ñun jigéen mooy suñu yaay ñoom ñoo ñu yar xam ma nit mënul fay yaayam. kon xam nga bu ñu bàyyee tamit seen mbokk yi fii dem ba foofu di liggéey di daan seen doole ba ubbi seen association di dimbali néegu doole yi foofu xam nga maa leen di bëggee bu baax balaa kii dundal maa ngi nuyu tamit sama ñaari yaay muy yaayu sëñ Mor te mu nekk Reset waaw sama carrière bu ma ñëwee ba léegi chaque jour boolu añam du manqué ak seen papa comprendre nga maa leen di nuyu seen famille yëpp di nuyu tamit sama maman Aminta. musul bëgg loo xamante ni saa may mer wala yenn affaire yi ak sama papa Baye Badou dañ may conseil bu baax a baax waaw ñooñu ma aw ma seen fay di di leen ñaanal yàlla neen yàlla may gudd fan ak wér yaram di remercier tamit sama di di nu ñu koy waxatee félicité félicité Hélène xam nga dafa jàng ba am waaw ñu ngi koy félicité bu baax di ñaanal yàlla carrière am lépp si jàng comprendre nga lépp lu mu mbébét si jàng rek. yàlla na ko yàlla defal comprendre nga di nuyu ñoom Moussa di ñëw ñoom tuuti waaw Moussa Seri Ngone maa koy bëggee bu baax ak ñoom tuuti ndey tuuti xam ma ah, ak salaam xam ma sama booy maa di bëggee bu baax di félicité suñ dëgg dëgg pare ma déglul bul ma dagg fa laa jëm voilà sama doom la kii di nuyu tamit sama benn jigéen muy yaayu kii Ami Sadio daf ko jël may ma wallaay azim may Ibrahima waaw di nuyu tamit sama Ibrahima beneen xaritam bi yi nekk fii booy ñoom jalona yi ku si mel ni Ibrahima ku si mel ni ñoom Issa ñoom ñëpp maa leen di bëggee di nuyu mafia Maris bi yëpp mafiya Aliou bi yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax sab borom États-Unis doomu nday jalona kooku mooy gaanu jalona kees nag waaw kooku xam nga ci doomu nday alala la si ñu ma doon tëggal si la bokk moom xam nga saa su may tëgg bu ñuy bu ñuy bëre rek moom may yor cuun bi bu aaloo rek ma aalu moom borom aali laa ko tu tuddee quoi <laughs> waa di nuyu ah? ak magam bira maa leen di bëggee bu baax a baax waaw képp koo xamante ne mu may jàppale sant naa gërëm naa fekkee tamit wax nañ fi loo xamante ni mooy loolu ñu xam ne ni waaw waaw nage quoi ah encaissé lan si jàppale waaw sëriñ daal waaw waaw ñu ma nii daal ñam waaw amul problème amul benn problème waaw mais yow tamit faat ma jëm maa lay sant bu baax waaw di la sant di la gërëm waaw parce que xam nga saa su ne yaa may di ma nemmeeku naka sa tànk bi naka sa li comprendre nga te saay bu ma defee tamit émission xam nga yaa ñëw assisté bu baax a baax waaw di la ñaanal yàlla sa carrière lépp loo sumb ak sa caméraman xam nga yàlla ngeen jot si barke Serigne Touba ak waa Kewel Elfo yëpp grand tier maa leen di bëggee yëpp di nuy journaliste yëpp maa ngi bëggee promoteur yëpp di bëggee ménager yëpp waaw di nuyu waa làmb yëpp daal suñu cant bi nag suba la ko waa waxaat dama koy waxaat waa danga ngaa war a ñëw gannaaw suba samedi la ko waa waaw tubaab moo ko organisé muy rue 5 angle 6 buntu kër Bilal Fall waaw maa ngi bëggee ñëpp waaw di nuyuwaat encore une fois waa Medina aw ma seen fay. waaw waaw mais ah, ah. waaw di ñaanal tamit xam nga di ne tami Zarko. Hmm. maa ngi dégg lu muy wax yëpp. Hmm. moom jaru ko moom boo gisee man naw ko. Hmm. daf ma tàllal loxo mbër yëpp xam nga mooy loolu. mais na bàyyi waxu rajo yi. ah mais nag neen tàllal loxo bi dafa am lu ko lal neen daf laa bëgg a corriger xam nga man instant laa xaw a kii sama xarit nga da kii man Zarko bu mu demee déglu man Zarko bu mu demee Moodu Moodu ji ah. bu ma daanee turandoom hmm. ma njëkk ne Zarko ñibbisil ma may la sens si làmb ji boobu kenn bëreegul ak moom hmm. barki sëñ Fallou te vidéo yaa ngi fi moom turandoom dama ko yenu bu si kaw dàmm loxoom hmm. waaw te moom bu mu nee na ñëw fayul turandoom. loolu tax mu ne correction moo tax mu da lay corriger loolu mënu ma corriger xam dafa yab waa. mënu ma corriger. <laughs> yow mënoo ma jàpp fedd mënu ma corriger parce que amul lu tax ma la loolu dafa bëgg a bii. waaw di nuyuwaat kami xam ma waa Zibra Taal bu baax di ko teg nuyoo bi teg ko si grand Moussa ak ñoom grand Zeno Bokande waaw maa di bëggee bu baax di nuyu tamit sama benn grand waaw ko dafa sonn si man depuis xale ba léegi barki borom Touba muy grand Bas te muy jaay parabolises yi doomu nday Amet waaw maa leen di bëggee bu baax ñaar ñooñu billaa wallaay di nuyu tamit waa gàlle fu ma doon gémboo mère Assou waaw mère Assa maa leen di bëggee bu baax di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam ak famille am yëpp waaw saa su may bëre fa laay ngémboo di nuyu ñoom Mouhamed ñoom Ibrahima ñoom ñëpp ma fi aar 5 bi yëpp maa leen di bëggee waaw